mbokki internet RTV Dakar ñu ñëw ak yéen ci li gën a fës ci suñuy xibaar ñu dikkaat rek ci accident bu metti bi amoon démb ci dimanche bi ci diwaanu Kaolack ci route nationale numéro 1 bi benn camion malien bu dugg benn taxi bu yeboon ay client daal di ko yéeg taxi ba dafa mokk toj ba kenn xàmmeetu ko ci bilee accident nag ñeenti nit daal dinañ ci ñàkk seeni bakkan chauffeur taxi bi doon wuyoo ci turu Njaga Ndaw nekkoon benn ndaw bu doon daan dooleem jotoon am soxna ak benn doom ci limu ñi ñàkk seeni bakkan si la bokk ginnaaw bi xew-xew boobu amee askan wa dañoo mer ba futt di nakkarlu ni camion malien di def ci yile tali ba tax nag camion bi def bi lay ñaawteef askan wa dañu ko toj mokkal ko ba mu mokk rumbax moom ak yeneen camion malien yi nekkoon foofu si loolu ñi féete si réewum Mali daal di def ay riposte ñoom tamit yàq ak toj ay camion sénégalais yi nekk sa réew bu Mali mu nekk ay jëf yu ñuy ñaawlu di ko naqarlu ndax dina andi ay jafe-jafe chauffeur yuy daw ci ñaari réew yi ba tax na jëwriñ bi ñu dee dénk wàllu dem beeg dikk bi di Mansour Faye yëkkati na ay kàddu di xamle ne ñi def bi ñaaw ñaawteef yoon dina dal seen kaw BFM 2021 école bi di Dia School ñoom nag zéro admis la ñu am si yile examen si 90 candidats ñoom moom directeur école bi Papa Mamadou Touré mu ñuy xamal ne ay élèves dañ leen doon menacé di leen wax ay baat kenn deful loolu ku dul surveillant ak secrétaire jury yi c'est du marche ki di serigne muntaha mbàkke di khalif general muriti dal di yebal ab delegation yam ngir ñu jebal seeni jaal fami layen ginnaw bi ñu ñaké seen khalifa mom serigne abdoulaye tiawlay dalal na ki di cheikh abdoulah khat gaynde fatma Bara baara laxat El elhaji mbàkke yu fay serigne basirou mbàkke abdou xadr ñu desandi ba legi ci dekk bu sel bi touba ay taw yu reey reey mo fa soti ci diggante guddi samedi japp dimanche ba ndox ma jot na fa nangu kër ab accident la ñu nemmeeku tey ci lundi bi ci diwaanu Yoff accident boobee mu nga amee ci wuti brioche dorée bu jàmmalaay si yoon bi lay yóbbu ca marché Dior benn camion moo daldi di ñàkk ay frein yam xël-xël yu métti bala moo daanu chauffeur bi doon dawal ndaamaar loole nag jële na sa ay gaañu gaañu yu méttee métti sa diwaanu fas HLM la ñu fekk benn mécanicien doon wuyoo ci turu Papis dumb la lañu fekk mu daal di ñàkk bakkanam ci benn appartement meublé la mu doon def foofee nag kenn xamagu ko ko ubbi na ab l'enquête ngir indi si ay leeral moom papis ay atam mu nga toll woon ci fanweeru at bàyyi na ginnaawam ñeenti bant xibaar yooyu ñu ngi ko jëlee ca Dakar Poste waa agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie ANACIM ñu ngi xamal ne séntu nañ ay taw yu ànd ak ngelaw lu ama am doole ñu ngi koy xaarandi ci zone yi di côte sud bi ci zone Sine Saloum bi Petite Côte bi Dakar ak Louga lii lañ leen indiloon ci ay xibaar di leen jaajëfal